pay per bi en fait booy xool euh, je pense que ñëpp ñëpp ñëpp dinañ ci tendre parce que le streaming mooy loo xam ne dafa am génération boo xam ne téléphone la ñuy seetaanee. Mhm. ak euh, ak tablette. et que même les maintenant booy xool même les yéen sax ah booy da ngeen diffuser en direct ci télé bi mais yéen a ngi relayer sur Facebook wala sur euh, wala sur YouTube. et que mooy streaming loolu mooy loo xam ne c'est les tendances actuelles de médias et que ñëpp mhm. dañ ciy dem léegi un promoteur buy def xaalisam rentabilité lay wër. donc bu fekkee ne les chaînes locales mënuñu euh, am ils am pas elles n'ont moyens pour jënd pour jaayaat donc moom su amee système PPV et boo xam ne peut-être ci diaspora bi rek la ko yemale ça équilibre parce que niveau local dinañ mën seetaan diaspora bi dinañ dinañ mën dinañ mën seetaan mais aussi fay comme ñun nañu abonné ci benn chaîne pour seetaan championnat championnat de football yi Fadam lan nga bëggoon wax waaw wàllu PPV bi laa bëgg am benn point mhm. loolu mooy sénégalais yi il ñu xam ne tey jii am na journée yoo xam ne nii ñu ngi koy dund ci làmb ba tey jii yow mi sénégalais bi nga mën a toog sa biir kër mën koo seetaan PPV mooy premier sponsor léegi ci làmb mhm. rawatina combat yu mag yi pay-per-view mooy premier sponsor ci làmb ñu ngi nuyu suñu confrère bi nga xam ne mooy Ibrahima Faye Beuz bi nga xam ne tey jii moo ko initié fii ci Sénégal. Mhm. bokk na ci ñi nga xam ne tey jii ay doomi réew mi lañ yoo xam ne tey jii dañoo créer loolu muy Ibrahima Faye Beuz mais li ma la ciy wax. Mhm. yaa ngi dund Ama Baldé Modou Lo nar a dund Eumeu Sène Tapha Tine ci niveau national ñu war ko may ci télévision yi. Mhm. bu promoteur bi amee doole jooju. ba mën ko amay perpervi moo nekk ci ginnaawam. ok ni mu nekkee ci ginnaawam mooy dina ko créer beneen doole boo xam ne nii bu bokkut tag tuuti sponsor bi muy am ci Sénégal. Mhm. dina ko dina tax ñu nekk ci diaspora bi mën a jënd code yi code yooyu mooy tax promoteur bi tey jii mën a am reliquat bu mën a fay yenn mbër dina mën a tax tey jii bu organiser ba pare mën tee gis boppam kon perpervi bi. am na solo trop solo trop ci làmb damay gis nag ñu bëri dañ koy sànni xeer ñu bëri dañoo xamul lan moo ci nekk. ci ginnaaw mais promoteur bi tëgg làmb bu amul intérêt du tëgg. mbër mi ngay tëgg bu ci amul intérêt du bëri. non je la plateforme.